ñu tourner en dérision euh, c'est c'est c'est mooy autre maanaam jaaduwul maa ngi koy condamné mais est-ce que tamit saytu ngeen xool lan moo waral loolu lan moo ne ci ginnaaw loolu. xam nga man da nga ma laaj koy def ban état d'esprit lañ lañ nekk. waaw mais dafa tax dama ni. bu fekkoon ku nekk jaaduwul c'est ku nekk bu ñu doon xool sa état d'esprit ku def crime mbaa nga def assassinat mbaa nga def délit kenn du la tëj. c'est vrai qu'en droit il y a des circonstances atténuantes mais il peut y avoir des circonstances aggravantes et moi je pense que taxaw rek saa su ne. di saaga président de la République kese mais yow ku ne yow. que amul fuñ toll yow foofu laay wax en fait jéggi seen responsabilité la yéenay gouverner fi mu nekk nii. Mamadou notre responsabilité. bu ngeen réglé loolu rek rek ma tuuti notre responsabilité pourrait être engagée. Mhm. en amont et en aval parce que nous sommes un État ça je te l'accorde waaye en aucune manière en aucune manière je pourrais accepter cela tu es libre nag. jaaduwul c'est vrai Mamadou Awa y a l'éducation. pourquoi est-ce que xalif généraux yi si moom di interpeller nous les femmes interpeller ñëpp par rapport à l'éducation de nos enfants Mamadou Awa am na luy xew léegi si société bi te daa waroon xew si société bi mm-hmm. li ko waral l'évolution de la technologie ku ne am na télé léegi bu neexee kenn du seetaan 7TV ku ne ubbi sa télé ku nekk taxaw léegi am nga droit wax lu la neex mm-hmm. am nga droit saaga ku la neex ba pare mu am ay télé yu tudd doomaraam TV ñun ñu Assane Seck la xaw Assane Diouf kooku nu mu tudd sax ki jóge woon Amérique nu mu tudd. sax nu mu tudd je sais pas quoi. mais ce gars là teleem loolu la tuddoon. ainsi de suite ainsi de suite léegi seetal le nombre de vues yu am léegi nañ teg politique ne xastel rek mbaa nga saaga bu dul politique xastel mbaa nga saaga mbaa nga sàcc nit filmer ko au nom du non respect de non respecter sa vie publique et sa vie professionnelle comment en sommes-nous pour moi personne peut-être que nous on a démissionné d'abord en tant que ndax ñun aussi parce que ñu ngi liggéey parce que ñun aussi ñu ngi sëy. parce que ñun parce que de ce qui non là ku décevoir ku am déception de ce qui te gouverne tu as ton arme c'est ta carte d'électeur Mamadou Awa je fais confiance à cette population sénégalaise qui ont toujours pris leurs responsabilités en main. c'est pas ces gens-là qui sont sur le net qui insultent la majorité d'entre eux n'ont même pas de carte d'électeur nañu waxante dëgg regarde ces dernières élections le nombre de personnes qui ont participé à ces élections non je refuse de. ñu bëri voté wuñu ñu bëri voté non li ma bëgg wax mooy. ñi wul am na raison peut-être dañoo jàpp ne ça ne changera rien du tout. non du tout loolu ku ko def def nga erreur bu mag. et je lance un appel. Mm Que je sois du pouvoir ou autre chose, je dis et je demeure convaincu que la carte lecteur mooy arme boo xamante ni citoyen moom nga am. du saaga du xuloo du wax ju ñaaw du xaste waaye jour vote jot nga dem ca mbañ gàcce ga jugal ki nga xamante ni xalaat nga ni wala yaakaar nga ni kii war na mën a doxal sa yow boo ko defulee di nga am lu la naqari te doo ko faj ndax bés boo génnee ci mbett bi nga def loo warul def dafa am ñoo xam ne dañu lay delloowaat ci yoon parce que nul n'est censé ignorer